collègues, en vos rangs et qualités, je vous salue. Monsieur le ministre, maa nuyu monsieur le ministre vraiment sous ma sañoon eh, voter ce budget ndax sa ak sa mais pas voter parce que monsieur le ministre ce budget du jël considération les immigrés du la monsieur le ministre du Hotel, la par la pure et simple raison que nekon nga fi ministre des infrastructures me posé le le problème de trois kilomètres de route ci PAM deuk buma ma cosaanoo ci ginaaw kebemer nga jël ko en considération Dougal ko ci budget bi ma woteel la ko la tok sama mbokk yep ak may ñetti kilomètre de route ba nga ni monsieur le ministre duma la wotel ndax li tax duma la wotel loolu ci la bok ndax Sénégal ci lañ bok Sénégal amul ñaari Sénégal té amul ñaari sénégalité duma la ko wax commission ndax dang koy faj damay ñew ba fi ma jakarlo ak fi ma jàkkaarloo ak samay mbokk ni len ñetti kilomètre route yoyu dinañ ko fa def mané len ko fa mi ngi budget de ministre budget duma ko wotel monsieur le ministre dafa am lu garaaw lu xew ci dëkk bi muy li nga xamante ne moom mooy enseignement religieux ñu gis sa budget enseignement am na ci doole ñuy sant ndax njàng bokk na ci xam-xam mais gis nañ ni bërki démb am na ñu ñu jàpp ñuy def maltraitement des enfants lépp wax ji nag jóge na fu nekk mais ñun li ñu gis rek lañu mëna a juger moy lolu dama yaakaar né gouvernement bi warna ci rester intransigeant ci décision parce que wax dëgg yalla ay xalé luñu ñu dëng dëng dëng mérito wuñu ñuy delloo goré man nak dama ko waxé ci instinct wu yaay jur samay dom moi je pense que sama dom lu mu dëng dëng du ko jéng donc lolu nañu ma baal rek supporter wu ma ci anduma ma ci jàppalewu ma ci kenn gouvernement bi daf ci wara a jël ay mesures parce que loolu tamit Sénégal yépp la naqari monsieur le ministre ñu gis ni cette euh, euh, législature moy législature euh teesante bi ak wéranté monsieur le ministre bala ngeen a wax ci ki waxone 10 millions yi wax len ki ci ni demb euh da ki génn di président groupe parlementaire bi passé dafa sacc 600 millions kon président groupe parlementaire amna 600 millions ba man ko sacc ba man ko détourner yaa yor xaalis bi wax ñu président groupe parlementaire ñaata lay am te loolu jàpp naa ni gisuma mënuma koo confirmer mais tamit monsieur le ministre munuma koo wedd ndax kookat saa yu waree wax su génnee moo fiy wax toj-toj yi kon jàppale ni loolu bi ne bërki démb ni commission d'enquête parlementaire dañu koo suivre génn na bërki démb palais bind lettre boo xamante ne dal ca Macky Sall ba ñëpp jàpp ci kon ma ragal ni kooku xeyna peut-être buy wax ci yéen la koy jëlee kon li war leer monsieur le ministre moi je suis malade le pays est malade les gens sont malades les hôpitaux sont malades ñëpp sont malades monsieur le ministre ce budget bi ngay votez, buñ la ko voter buñ la ko buñ la ko na nga jël en considération la santé monsieur le ministre la santé est religieusement malade ndax la santé kat katu santé sonu nañ hôpital yi tilim na hôpital yi salte na la nga xamantene ne koy am bu len ci monsieur le ministre nak dégg na fi ku wax ni y a un collègue député qui ment j'aime bien son mensonge il est technique il est économique il est franc il a un franc parler que le Sénégal aime bien c'est un jeune qui sort de l'ordinaire et sort de l'extraordinaire pour woné Bopam, kon jàpp naa ni kooku fenam dina ma neex ma bëgg fenam ma bëgg fenam ndax bu fekkente ne loolu rek mooy fen fekk fi sénégalais yi di metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi foofu la koy waxee monsieur le ministre euh, ma ñëw ci yow rek di wax ni euh, dëkk bi war nañoo jàpp ni euh, dëkku corruption ak pauvreté la dëkk boo xamante ne la drogue fi waaja a sonn ndaxte léegi dañ koy jaay comme ni ñuy jaayee sunguf meew te nag por bi kenn dirigé wu ko yéen yéen a ko dirigé kon port bi monsieur le ministre lépp lu fi dugg xam ngeen fu mu jaar xam ngeen ki ko jël génne leen ko jàpp ko parce que kat lii raam ci ñëg bi la jëm te bu fa amee kër du fa dugg ma bëgg nag nga xam ne jéem télé dara nekku ci comme ñi ngi jëm ci 2024 rek ngeen abal réew mi Karim Wade mu ñëw taxaw defanteeg yéen lu baax asalaamaaleykum je vous remercie